nuyu bu baax mbokk yi di am mbégte ak contentement bu mag mbokk yi jàkkaarloowaat ak yéen di nuyu internet bi yëpp di nuyu réew mi di nuyu biti réew di nuy nuyu waa Géejawaay bi nga xamante ni tey ñoom la ñu fekk si fii li ko waral moom mooy seen doom Fils de Balla dafa am bés bu mag boo xamante ni mi nga war a am arène nationale le 14 août kan moo ñu fa woo jam production yàgg nañoo woo ci bis bu mag waaye bés bi tootuñu ko fàtte diggante góoru sok ak ki nga xamante ni moom mooy Fils de ñoom ñaar waxante lu ne Balla balaa ma lay jox micro bi ngay nuyoo dama la bëgg a xamal ni il faut nga xam ne dootoo mbër mu ndaw de mbër bu mag nga tey bés bi wane na ko yow xajatoo fii su be waaw Baye maa lay fay ginnaaw bañ sant yàlla julli seen dund sant sama ñaari bu baax a baax di sant sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel di ko sant bu baax di sant njabootu suñ Moussa Nawel gépp di sant tamit waa Géejawaay awma seen fay te bés bu mel nii ñoom la di nuyu tamit suñu waa écurie bu baax a baax a baax gis naa seen taxaw ak écurie yi nekk Guédiawaye yëpp di sant tamit sama ba patron Balla Gaye 2 maa ngi koy sant bu baax a baax a baax amu fayam sonn na ci combat bi dañu ay coon lu ne def na ko ci di mbër yi nekk fii yëpp di ko di ko def si nexalu liiru jaan mu nuyu sant jàllale ma ko si ñëpp di sant tamit waa amoo bi fii di jéggalu paa yi tamit maa leen di sant bu baax a baax nuyoo bi di ko toog si loxo Boniface ak góor a pataa sonn nañ ci affaire yi dox nañ ci lépp di jégalu paaye bu baax a baax a baax di leen wane seen doom moo xew la rek moo tax indi ko fii di sant tamit journaliste yéen ñi teew fi yëpp ak mbooloo mi fi ñëpp la lan la parce que yéen ñaar da ngeen waxante lu ne façon tëkkonte bu ne da ngeen ko tëkkonte mujj gi ngeen fexe ba indi tër bi parcelle ak géejawaay dafa am fu ngeen jaar yéen ñaar non jaaruñu fenn dafa nekk làmb rek max moom ñu war a bëri nekk ay xale nekk ñu war a bëri rek mais du dara du dër bi waa parcelle yabuñu te duñu musa yëpp. li ci ëpp ci sa communication dañuy gis ni Fils de la ci combat bi daf ci naagu trop parce que yaakaar na ni bu jàppi góor so lamb ji du am une minute da koy jeexal fan nga teg loolu. bu bu ma naagoo waa géej waay rey ma ndax sañu maa naagu sax bés bi dama koo soxla de te waa géej waay dañ koo soxla du ma ko ñaax mukk góor so góoru so daf may rey rek mais bés bu du yóbbu ndam may rey rek mais victoire du ko yóbbu. Mmh. fils de Balla ñu ngi lay nuyu. di félicité ñii nekk sa ginnaaw. nanu ànd ak dal ñi fi ñëw Gora dem ngeen bay xëccoo mbaxana kenn ku ne di wane ni maa moom lan la sa digganteeg Gora Sock da jàpp ni yaa mën ba tax foo fekk Gora Sock ba koo néew a doole ndax koroog mbaxana mi nga doon xëccoo si sûr que yow moomoo ko woon. non mënu ma ko sax lamb moo ñu boole rek la katal su ma ko daanee pare laa wax ju ma ko moom lamb moo ñu boole dañu war a bëri waaw. ñu gis wax naa ko Iba Mar Diop so dem nga ba daan góor soog ñu génn ci biti. di sant tamit guy gi bu baax guy gi ab Diouf juuf Seye 2 mbëri yi nekk fii yëpp mbëri ñëw maa sant bu baax baax la dëgër 2 ñoom ñëpp gars yëpp bàyyiwuma kenn ah. Mm-hmm. Euh, sa sa digganteeg Balla gay 2 gis nañ ni ci combat la jógee jotoom bariwul mais bàyyi na léppam ñëw sa digganteeg Balla Gaye 2. papa papa ak doom la. donc moom laa tuddee sama bopp man aw ma ju moom sax mu amul si man sax kon li mooy waree fa mu ñëw. di ko sant bu baax. Fils de Balla ñu naxante ci combat capital nga. Arlo góor soog xeex ak moom bëreeg moom indil ndam li waa Guédiawaye est-ce que ah. avant tout man la la man du ma champion. ankay ah, ankay moo tax mu jël ah. waaw. góor bu bés baa xam laa koy ñaan. ci kàttanu yàlla incha allah may bëre may daan. bu laa ma ci jeexee dañ génn ay vidéo xam day taw sax taw. stade Iba Mar Diop hmm. ne la sa diggante góor soo nga ne ma bu xeexee dama koy duma ba mu tëddal boppam mu bëri ma daan ko te ba wax jooju bi ma la ko bi nga ko dalee wax ba léegi delluwoo ci ginnaaw. lan fan nga ko teg wax ji. parce que jaaxal na amateur yu bari. dëgg la bu musu musu dellu ginnaaw bu xeexee mu duma ko bu bëree ma daan ko maa gën a nekk xale maa pour doole. loolu la yàlla dogal. seconde ko ko may. ah seconde waaw may ko vingt seconde rek. vingt seconde bariwul may bu ñëwul man ma ñëw. bu ñëwul nga dem bu ñëwul ma dem vingt seconde laa may bu ñëwul ma ñëw. nga ne ko. Euh, bëre bi nga xamante ni lu gars yi kon ni gars yi di wax rek bëre suuf bëre au sol est-ce que tey mën nañoo xaar ci loolu da ngay cons comme que seconde waa parcelle da xew dafa xew ci seconde yi te yow nee nga xale nga est-ce que pare nga bëre seconde wala da ngay cons kon sa turando. man du bëre gis góor a soog combat bu yow man damay ñëw bëre jaar jàll dem may def mu jeex amul leneen. le fait que ñun équipe Balla Gaye ku ñu xam ne si bëre lañ ne ñun bëre rek la ñuy def defuñu leneen école du Balla Gaye ku ñu xom xam na ci bëre ñuy def ñun bëre rek la ñuy def amuñu maa ngi lay nuyu. Gora Sock da ngeen a yéen ñaar mu xamal nga xamal ni ko ci sama tànk bi nga jëm mu ne la ci tànk bi lay jaar te falaa lay daane est-ce que bu arbitre ne prime di nga sóoraale Gora soog mu ngi si sa tànk. Gora soog bu dawee samay tànk ngeen gis jël bu garaaw bu ma koy daan bu dalee samay tànk déglu ma la bu si jaaree barki ki maam ngeen gis top 5. ah bon ba pare dafa mën bu daanee fils de balle la war a bëre du doon pression ci moom. non dañuy bëre daan du nekk benn pression ñun bés bu mag bu ne bëre nañ ko dañuy ñëw bëre daan Baye Mandiaye ñëw bëre daan. ñun daan rek lañ xam ñooy tëj saison bi ay victoire lañ koy tëj si kattanu yàlla non dee ñu ko dañ koo liggéey rek dañ koo liggéey man boo xoolee xam ne man wàññi damaa liggéey ba wàññeeku ne apoon naa nii mais damaa liggéey ba wàññeeku Lamine Gola di sant tamit suñu coach Lamine si supporters yi di leen wax ñu mobiliser lamb ji arène nationale la képp ku ñëw sama kër di nga am billet Lat Diop dina jënd billet yëpp. Lat Diop dina jënd billet yëpp. Lat Diop même waaw dina jënd billet yëpp. ku bëgg rek stade nga ñëw suñu kër oto yi fa la ñuy départ lépp fa la ñuy départ di woon nag ñëpp autorité Guédiawaye ñoom ñëpp. amoo siis waa Daaru Minam sama booy. mention spéciale maa leen baax bañ bañu suba ba léegi ñoo nekkoon fii doon defar bi maa leen sant bu baax waa Jibo fi ma dëkk fi ma dëkk ma leen sant bu baax waa Cheikh Ngom waa waaye maa leen ñu wax waaye noppi leen ñu wax waaye waa Cheikh Ngom fi ma dëkk maa ngi leen woo bu baax a baax waa jiboo bokk jom xale yi cité jamono amoo ñëpp ma kenn ayse bu ma lim dinaa jum maa woo ñëpp ñëpp di woo ñëpp di woo tamit sama papa Aziz Ndiaye maa ngi koy woo bu baax Baye Ndiaye maa ngi leen woo bu baax Masata Ndiak Khalil Sora Badou waa kër famille Aly Ndiaye awma seen fay bu baax di sant tamit sama doyen Tafa Yaa jàpp na si Pierre jàpp na si Wilane bàyyiwuma ah,